mënoon naa gën a yéeme ndax lu mel nii daan dañ ko faral di gis lu bëree bari waaw sant yàlla d'abord. Mhm. parce que euh, naroon na heureusement jur coow lu rëy. Mhm. ndax avion xam nga avion ak souvent dañuy nit ñi dañuy jàpp ni avion euh, moo gën a dangereux ay bateau wala oto. Mhm. wala yu ni mel parce que li ngay dégg ci ay avion yuy daanu. dañu naan li bariwul. Mhm. mais bu daanoo moom daanu na. amul daanaka pour nga mucc ci euh, daanaka dafay dafay jafe donc sant yàlla bi nga xamee ni euh, mbir mi euh, soriwul noonu ndax ci boo xoolee ni gaañu sax ci ay xibaar yu ñu jot am na si ñoo xam ne seen gaañu gaañu lu ko gën a indi mooy tiit am na sax koo xam ne dafa toj vitre hublot benn ci hublot yi pour mën a rëcc ndax gis na xal. Euh, wala safara bi doon tàkk heureusement que fekkul avion bi sori mais euh, Ablaye man xam nga lan moo jaaxal wala mu xaw ma tiital rég ci réewum Sénégal dama doon dégg ku ci mel ni Samuel Sarr doon wax dafa am Sénégal ñi xam duñu wax ñi xamul ñooy wax man ma yokkal ko ci nii ñi xam bëgg a wax ñi xamadi bëgg leen noppiloo moom moo am ci réew mi da xam. doo wax ñi xamul ñooy fees fépp di wax lépp léegi yow mi xam bëgg wax ku xamadi ne la doo ko fi waxee wala boo waxee mu wax la euh, sa wax la sa démb comme on dit dans cette affaire j'ai vu pas mal de avion bi nii la demee na leen la demee même ñi bokk ci biir ñu nekkoon ci biir avion bi ce sont pas des techniciens oto bi panne na wala saaraan na ka xam oto moo la mën a wax lu waral saaraanu oto bi même le ministre bi ñu dénk mbir moomu mu yore wàllu transport terrestre aérien infrastructure euh, njortam lay mën a wax mais day xaar bureau bi yore wàllu enquête ci ba muy ba te yore lépp lu jëm ci wàllu enquête bu amee lu ni mel ci avion ñoom ñoo am sañ-sañ njëkk yëkk ci kàddu ku ci mel ni Xavier Diatta maa ngi koy nuyu dañu bokk benn panel bu haut niveau boo xamee ni moom c'est un enquêteur ci wàll woowu mu ne avion bu amee lu ci am jafe-jafe wala mu am crash wala mu am euh, sortie de piste nuñ koy waxee ndax sortie de piste lu faral di am na ci ay avion ci yenn ci ay réew dafa am benn kuréel gu ñu woowee BA ñoo duñu xaar ñu saisir leen du ñu xaar ñu ne président nee na wala gouvernement nee na wala ministre nee na seen rôle la ca saase ñoom ñooy def seen enquête tàmbali seen enquête pour xool lan moo waral am ña ñuy interroger am ba ci euh, pilote beeg technicien beeg euh, nu ñu koy waxee ci copilote bi personnel de bord beeg euh, technicien yi nga xamee ni ñoom ñooy rewàllu maintenance ñi nga xamee ni avant avion di décoller ñoom ñooy saytu yooyu yëpp mm, ñii di waa DEA ñoom ñooy def càmbar yooyu yëpp. xool ba ca tour de contrôle yan message la ñu jàllalante digganteem ak seen diggante ak ki kii pilote bi avant décollage et euh, cetera et cetera ñooñu bu ñu waxee ne ni BA moom dong moo am sañ-sañ te kenn du ko saisir dañuy am seen autonomie bopp boo xamee ni ministre bi saisir ko bañ ko saisir BA day def liggéeyam te bu ñu paree xam lu ñu njëkk a def point de presse pour ne ni lii moo amoon ci avion bi nii la demee ba sàngam avion type nangam euh, numéro nangam immatriculation nangam nangam wax lañ ca gis gannaaw gi ñu borom avion bi wala compagnie ba yore avion bi ñu jox ko information yi bu ñu waree jox information ba ci ASECNA mi nga xamee ne moom moo ëmb tuuti euh, li nga xamee ne moom mooy suñu euh, suñu ay aéroport ak suñuy avion ak suñu jaww nu ko mën a waxee. informé ko ci la ko waraloon parce que dafa amoon ay jeexital ci bi avion bi defee boobu les sortes de piste ba am lu tàkk ndax toog nañ ay waxtu yoo xamee ni dafa am lu ñu waroon def au préalable AIBD euh, le nouveau directeur général def ci wàllam par rapport ak ñi mu àndal ci staffam pour par exemple nettoyer piste bi parce que benn pont rek mën naa daaneel avion ci piste ak yeneen ak yeneen moo tax ma ne kiy xam dañ leen war a jox ñuy wax te bàyyi ñeneen ñi ñi xamul ñu noppi ci mbir mi ba pare dafa am loo xamee ni les gens je sais pas s'ils l'ont remarqué Sénégal dañoo bëgg téléphone ak photo ak filmer mais un avion xam nga lan moo koy dawal kérosène avion bu explosé c'est pas ay cent wala cinquante c'est mais mën na def benn ay kilomètres à la ronde mu am ay conséquences mais les gens étaient là devant l'avion di filmer parce que malheureusement Sénégal on aime le buzz le sensationnel maa ko njëkk a gis alors que tu es même pas 50 mètres de l'avion un avion dont l'un des moteurs a pris feu ça il faut que nit ñi bàyyi ci xel commandant wala copilote bi gaañu na sauvé wuñu ko ñu jël di ko filmer ak ay jooyam ak yooyu gis na Sénégal bu ñu bàyyiwul téléphone portable filmer dinañu ci mës a am jéeyo joo xamee ni kenn du xam noo koy waxee tu es à quelques de l'avion y a même benn personnel bu taxaw ci film yi nga gis di leen yuuxu naan leen jóge leen fii bu leen filmer jóge leen fii sori leen parce que c'est un avion c'est quand même un avion ak la mu am ci jéyee lay mën a indi te loolu war nañ ci bàyyi xel